ndax fan yi choix yi dafa bari ci réew mi nit ñu bari di wax rawatina ki yëkkati kàddoom du ma ko tudd ndax xas ab jullit du ma ko def kon am na suñu kilifa gu baax goo ko daa firée ne nit ku baax dis gor boo ko teralee moom ko ab kàccoor nag boo ko teralee mucc mucc ci ayam wala mu féttéeru dem waaye loolu amul solo ndax Euh, Serigne Touba li ko suñu borom defal kenn mënu ko wàññi du ci wax du ci jëf dula la ndax ñi ëppoon kattan di Touba bi fu ne jéem nañ faa jaar ak moom fu ne jéem nañ faa jaar moom mënuñ ci dara jéem nañoo jub moom booba it lam wax mooy fa in i'tazalukum fa lam yuqaatilukum wa alxaw ilaykum salam waaye nag wa in janaxoo li salmi fajna laha waaye nag wa in taudu naut lu ci ne moo ko kon Sëriñ Tuubaa loolu moo doon tawqi am kon Serigne Touba defu fa genn loo xam ne ak ñàkk fayda la defu fa dara luñ ko mën a jame dara loo ne tubaab mën nañ ko nett li ginnaaw ndax lépp ñoom bind nañ ko mu lu leer nañ ko jeexale rek ci kàddu yoo xam ne dama koy jeexale dañuy wax ne li kulli maqaamin maqaal ndax wax dañuy wax ne ñett la ñett ñett ko war a wax li ngay wax ni koy waxe ak fi nga koy waxe kon day mel ne jataay bi li may bëgg a wax mën naa ne lu génn jataa bi la waaye nag itteel gum ma itteel ak ñor gum ñor ñëpp moo tax mënuma ko njàkk wax ndax boo demee ci ibnu duraydin day wax ne lakinnaha nafthatu masdurin isa jaasalu xaamun min nawaahiha xama am na loo xam bu feesee sab dënn rek boo xëy génne doo ko tey yéem sëñ Tuubaa ci jom ji ak fulla ji ak fit ak dëgër gi la ñuy def kon kooka tuuti na ci nit koo xam ne toog fee waxtu ne muy xool li gën a ñaaw di ko teg ci dëru Sëriñ Tuubaa mm-hmm. te loo xam ne nit ñi mën nañ koo saafara seen seen bopp ci benn bis wala ñaari fan mm-hmm. waaye nag jàmm bu amee cim réew day am lu koy sàmm mm-hmm. ndax pas-pas bu toll noonu pas-pas yu toll noonu sax laay wax ndax yëmmadoo ko Sëriñ Tuubaa kenn du ko fooyee ndax bu nit ñi jugee saafaral ko seen bopp lu ne mën na ca juddoo te loolu baaxu cim réew kon moom itam na maandu buy waxati na wax ci lam xam na wax ci lam gëm te bàyyi ñi nga xam ne yoonam néew ci ñoom mu maandu ci ñoom liñ mujj wax ci Serigne Touba nag ba àgg ci di wax ne tubaab yi xamul nu ñu ko nettalee sax ndax man digguma ko aw ma jotul di ko diglu mm-hmm. waaye liñ ma nettali ca nam ko waxee bëggumaa jaar ci baadi di ci jum waaye na nam ko waxee demeewul noonu Serigne Touba dégg ngeen Cheikh Abdoul Ahad la mu waxoon mm-hmm. waxi wax ju leer nañ la ci koor gi mu fi mujj fekk mm-hmm. sax baan tàggooguma Ramadan nuyooguma koo xam ne chambane ramalaan ñoo lay ñoo lay nuyu nag ku àgg foofa sa digg sa borom eh, tuuti ne ci mbindeef di la wax rawatina ab tubaab te tubaab yi suñ tubaab xam ngeen ne mosu leen a nongul dara ci ci boppam bañ ko bëggee takkal me médaille dafa gàntu bañ ko bëggee dem dem ba ci mujj gi ñu àgg ci ne dem nañ ba xam ne liñ jortoon ci ak liñ amoon liñ liñ bëggoon amut naa gis nañ ne mboolem ñiy woote lu baax rawat na suufiyanke yi dañ dañuy dëddu àddina ne ci àll bi di lekk eh, ay xobi garab wala ñuy dëddu loolu bu amee àdduna kenn du ko dundal yow nag gis nañ ne lislaam ji ngay woote ñëpp danañ jub ñëpp danañ tegu ci yoon kenn du tooñ te nit ñi itam àdduna si dana defar ndax nit ñi danañ liggéey kon nag dañ laa buggoon a jiital ci liñ daa tudd AOF li nga xam ne France moo ko yilifoon nga jiital lislaam ji yëpp bañ ko waxee sëriñ bi sëriñ bi laaj leen ba xam lu ci seen xalaat ñooñu mag ñi rafetlu ko ne ko ah, loolu de xanaa mbégte la ndax eh, ñoom de ndegam ñoo jortoon ci yow daal dem ba wëlbati ko waat wax ne dañ laa bëgg a loolu dana am solo ndax eh, ñoom buñ xasee ba jiital la dañ ci forcé ñëpp Sëriñ Tuubaa nee loolu nag laay bañ ndax yéen ñi ànd ak man de lu ma leen digal ngeen def ko lu ma leen tere ngeen bàyyi xam nga loolu lu ko waral da ngeen ànd ak man ngir yàlla ci seen coobare ñoom nag lañ bëgg bu amee ku ci ànd ak man du doon seen du doon seen coobare force lay doon te la ikraha fi diini daan te inil kaafiruuna illa fi xurur nee ñi wedd yàlla luñ la wax rek ay wor lañ ca kon Sëñ Tuubaa mbiram wees na loolu kon kuy wax na wax ca la nga gëm wax ca dam xam koo xam ne gëmoo tasawuf nga yem ca la nga gëm ndax ñun amuñ jotug di tontonte loolu nit day nekk ci lam nekk gëm lam gëm te xam ne loolu jëm nañ ko ay ay ay fukki at ay fukki fukki fukki at saa suñ luñ gën a wax ci Sëñ Tuubaa lu ñaaw nit ñi seen positif di gën a wér ci Sëñ Tuubaa seenu doogu ci Sëñ Tuubaa di gën a dëggu seen seenu eh, jaayante ci Sëñ Tuubaa di gën a dëggu kon loolu jëru sa xalaat ku am jot sax mooy nekk ci den digloo ko jéem a xool ca eh, la ñuy wax ndax loolu amul solo man man de bu ma ñëpp toppoon ñëpp day noppaloo ndax du ma ko dégg du ma ko diglu te kenn duma ko wax lu ma ci dégg rek ci jotaay laa ko déggee te bu ma amee sa bu ma àndee sama sama sama coobar yi du ko dégg loolu kon na ci na ko ñëpp xamee noonu.